ñu jàngee ci xët mu njëkk Vox Populi ne Ousmane Sonko ma ca loxoy yoon dellu na ca grève de fin ba mu ne woon kenn ci avocat moom Ousmane Sonko di maître li di ko dëggal ci yéenekaay bi ba dañu wax ne démb ci talaata ji ay boori cinq heures ci ngoon ci la tàmbaliwaat grève de fin bi li ko tax a sóobuwaat ci xiifal moom Ousmane Sonko avocat bi mi ngi ñu koy leeralal ci yéenekaay bi yéenekaay beneen mu di Source A moom li mu bind mooy Sonko yëngu-yëngal la woote nee dellu ci grève de bi ngir solidarité patriote yi ñu jàpp ci kasoy réew mi ci lu dul yoon bés bi ma nga ca résisté ga ci jamono jooju état bi moom désisté na agent judiciaire de l'état bi ne woon dafay dem ca yoon récuser juge Sabassy fay agent judiciaire de l'état bi yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne dellu na gannaaw ci récusation ba enquête yéenekaay xëy di ñuy wax li waral désistement gi maître Abdou Dialy Kane bokk ci avocat yu état bi moom la enquête jox kàddu gi muy joxe moom it raison yi tax ba agent judiciaire de l'état bi teg ci suuf waxi récusation